ñëw nag dañu fi tey pour wax yëfu kër ci salon de l'habitat muy ponk bu rëy ci plan Sénégal émergent moo tax président biñ ko joxaatee réew mi en 2019 mille mu ne man kat dinaa def programme boo xam ne ci wàllu urbanisme dinaa fexe ba réew mi dootul amati dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñuy faral di wooye bidonville nga xam ni néew doole moo la fay yóbbu te it dëkkuwaay ba na muy bindoo du doon loo xamante ni gis ko sax ci bët rafet na mu ne loolu bëggatul mu am ci réew mi mu ne it dinañu def programme bu rëy boo xam ne dinañ defar cent mille logements programme boobu la dénk Ablaye Seydou Sow logement nag buñ ko waxee li ci jiitu mooy sutura la ndax ñun Sénégal lépp lu ñu mënti am bëgg-bëgg bi ci jiitu ci père de famille mooy am kër sutura nga ci xalaat sa njaboot nga ciy xalaat ëllëg ndax kenn du tabax këram pour moom ci boppam la ngay tabaxee kër kër mooy pour sa njaboot am loo leen bàyyee bés bu yàlla defee li ko soob ci yow loolu nag la dénk Ablaye Seydou soow doonte am nañu xalaat président am na xalaat boobu mais xam ngeen ni aussi logement ci wàllu koom-koom fii ci Sénégal dafa am impact dina tax réew mi gën a yokk ndax luy dugg ci pour mu taxaw lu bari ciment fer béton euh, peinture carreau etc. cetera loolu yëpp ay nit ci liggéey njaboot ñu bari ci problème emploi yëfu liggéey fi mu président de la République ak mu réew explorer nit ñu bari mën nañ ci am xëy li nga xam ni président sant nañu ko sant na ko gouvernement bi te incha allah dinañ ci jàppale Ablaye Seydou Sow ci lu ñu mën mooy fexe ba programme ak projet yi nga xam ne am nañ ko te lépp di pour defar réew mi ñu fexe ba ñu def lépp wala boog la ci ëpp ñu def ko ci ci gàttal def ci loo xamante ni incha allah ci atub déwén bii di ñëw balaa muy jeex mu doon loo xam ne dañuy wax ne lii guléet la ci wàll wii nga xam ne dénk nañ ko Abdoulaye Seydou Sow gouvernement bi musu cee def lu day nii incha allah moo tax ñuy xaar seeni conclusion di ko boole aussi études yi nga xam ni am nañ ko mais bu ngeen soxlaa it même tey ci ngoon am nañu yeneen borom xam-xam yoo xam ñu ngi ci biir administration bi di liggéey ci yu mel ni bu ngeen leen soxlaa bu ma ko Seydou Sow waxee ci saasa dinañu ñëw waxtaan ak yéen ndax fi may wax ak commission yoo xam ñu ngi liggéey ci la solution structurelle li gën a gudd moom mooy fexe kër bari bu offre bi rek prix yi wàññeeku li ci des nag moom ci biir ñu fexe ba li Sénégal ay ciment fer ay bant loolu yëpp ñu fexe mu yomb ci biir Sénégal